ñu ñëw ci jëwriñ ji nga xamante ne bii mboolem soxna yi nekk fii ci Alsantine moo leen jiite tey oh, boot ñëpp tey ba taxawal fi daayira maam Mariama Tula bi nga xam ne ñun moom la ñuy xoole soxna jaara ndax buñ ko xoolee te def ko roy waay rek jërul sax ñuy àgg ci soxna jaara ndax kenn bëtam du fi xonq moo ñu boot rogganti ñu teg ñu ci yoonu siraatal mustaqima tan sa fi ñu ngi lay ziar bu baax waaw ñu leen baax a baax sant Serigne Touba bu baax am kontaan ci bis bi nga xamante ni moom lañ doon séntu ay weeri weeri weer ñu dugg si jàmm te génn si jàmm si barke Seydina Mohamed di am kontaan ak mbégte bu baax a baax a baax ndax macha allah ñëpp a ngi fi taalibe Cheikh yaa ngi fi waa kër Sëñ Touba yaa ngi fi kenn manqué wul daal vraiment daal suñu xol daal seet na suñu xol tooy na daal dañuy ñaan ñu fekk koy ati ati at di ko mën a doxal comme ni ñu ko doxalee ren jii kontaan nañ bég nañ bu baax macha allah. ñu ngi lay jaajëfal bu baax tànn sa fi caam di ñaan yàlla saa borom yàggal la fi guddal sa fan wéral say cër ah, ndax xam nga ne boot ay xale dafa metti nga di leen teete di leen teg ci yoonu siraatal mustaqim ba bis bi tey bu taxawee ginnaaw yàlla sa ji sa jëmmi ji bii moo ko taxawal kon ñu ngi ñaan ci barkeb maam Mariama Tula Serigne Touba fayal la boppam nga dund ba toog Sénégal xale yi di la yóbbu Màkka nga def ko ne marché occas di dem ak a ñëw ci barke maam Mariama Tula ne ni ñu ko waxee woon boobu ba léegi rek dañoo àndoon ak yaay faal yi Euh, nga xam ne fii tamit ni ñuy dundee rek dañuy ànd ak suñu mbokki tubaab yi nga xamante ne bii ñoo fi nekk euh, te seen i borom kër di ay sénégalais mu ngi tudd Soxna Marie ñu koy wax madame Bamba euh, Soxna Marie ñu ngi lay nuyu baax. ça sant yàlla bu baax a baax ngay day. alhamdulilah Soxna mari tey noo gisee màggaluk maam Mariamatula gi nga xam ne mooy wayjuru Serigne Touba mi nga xam ne moom la ñu dippee sa borom kër te tey lu yëngu ci àdduna rek moo ko yëngal. waaw waaw macha allah. tey eh, Magal de Mam Yara Bousso. Mam es nuestra guía, nuestra guía, nuestra celebridad como mujer. Es la guía de la rectitud, de la paciencia y, de la buena mujer musulmana como debe ser. Así que es la única mujer que se celebra y estamos muy contentos porque todas queremos ser como Mam Yara eh, tener ese corazón y esa paciencia para la vida. y compartirlo acá con todos eh, está muy lindo, estamos muy contentos y es muy lindo re refrescar la memoria de Mambiar Abuso, así que bueno, yo estoy muy contenta. Eh, gracias Madame Bamba, gracias. ni ñu leen ko waxee woon àndee ko yéen booba ba léegi si màggalug maam Mariamatulaa yi yaay Fall yaa ngi nii takk doon ay Baay Fall yi maam Jaara euh, tey ñu doon dundal bisub soxna Jaara bi mu mel ne kon dañuy njëkkee ci soxna Jaara bi nga xamante ne bi maam Mariamatulaa lañ ko duppee maam Jaara lan nga ci bis bii tey. waaw asalaamaaleykum sama mbokk taalibe yi maa leen di nuyu di leen siyaar yéen ñëpp di leen jox kenn ku nekk sa wàccuwaay di wax ne bis moom wax dëgg yàlla kontaan nan e, dugg nañ ci bisimilah rahmaani rahim eggal nañ ko alhamdulilah rabbil alamina yàlla def na daal wax dëgg yàlla moom li liñ bëggoon lépp suñu borom defal nañu ko def na ni xéewal yu baawaan taw féexe na daal wax dëgg yàlla kontaan nañ daal ba ñoo wax wër na Serigne Touba di ñaan daal bu déwénee daal yàlla na ëpp lii wër na Seexul Xadim ndax wax dëgg yàlla moom ay yaay faal rek ñoo fi nekk Argentine moom ay yaay faal kese ñoo fi nekk wër na Serigne Sall ñu bëgg a liggéeyal soxna jaara nag ñu ko bëgg a liggéeyal di ñaan suñu borom yàlla nañu gën a may kàttan gi ak xol bi ak mën-mën bi ba nga xamante ne lépp lu ñu yéene ci soxna jaar rek suñu borom leen ñu ko ci bàkki Seexul Xadim di ziar sama borom kër bu baax a baax nag Assane Baye fa wax dëgg yàlla nag lépp moom la waaw nu ma mel Argentine rek moom la wuru Serigne Saliou Mbacké waaw loolu boo ko waxee duñu betti ndax maam Mariama Tula la duppee te kenn ku nekk da jël sa turandoo juróom ñaari jikko nday bintu ñu ngi leen di ziar ak maam Penda Lawbe di leen béggee lu bëree bëri lan nga yëg ci bis bi nga xamante ne bii genn màggal la ci àdduna te jigéen moo ko am muy bisub tey bii mbégte nag mbégte rek yëg ci mbégte mu bëree baree bëri di ñaan yàlla di ko màggal ay at yu bëree bëri fii ci Argentine di ànd ak mbégte mu bëri daal ñun jigéen Argentine yëpp bég nañ di ñaan yàlla chaque at ñu koy gën di màggal. maamtee na ñu ngi lay siyaar di la bégee euh, tey lan la sa xol yëg bi nga gisee taxawaay bi mel nii nga xam ne dafa mel na yaa nga biir Sénégal wala boog mu mel na yaa nga poroxaan tey jii kon lan nga yëg tey sa xol. ah kontaan rek macha allah di ñaan yàlla ñu màggal ko ay année yu bare bare bare bare ndax tey moom bu ne Soxna Jaara rek jigéen ñi yëpp dañuy gis seen bopp xam naa ne moom wax dëgg yàlla. ah benn jigéen bu am màggal yombul waaye nag ah daal ñu ngi sant ñu daal wax dëgg yàlla man mënuma wax bu baax mais tamit kontaan nañ bu baax di ñaan yàlla yàlla daal taaf ñu ci barkeem ñu daal di mënuñu ko roy mais ñu jàngat daal ci moom ndax jigéen bu ne war naa jàngat ci soxna jaara di ñaan yàlla rek yàlla may ñu dégg ak topp rek macha allah kontaan nañ yàlla nañ ko teewee ay année yu bëree bëri ci barke Sëñ Fallou barke borom màggal jërëjëf maam Penda ñu ngi lay jëfal bu baax a baax ah, di leen nuyu di leen ziar di leen bëgg lu bëree bëri soxna Soda Thiam ñu koy wax madame Samb lan nga yëg tey ci bisub maam Mariamatoula bi nga xamante ne bii ah, bu yàgg ba léegi ñoo ngi fii ci Alsantine di ko waajal ay at ay weer ba yàlla saa dogal guddi gi ak si tey ngeen di ko dundal lan nga yëg ci sa xol tey. asalaamaaleykum sama mbokk taalibe yi sama mbokk jigéen yi maa ngi nuyu kenn ku ci ne sa tur sa di kontaan rek ci bisu soxna maam Diarra Tullaawe bi wax dëgg yàlla ñu am ci contentement bu bu rëy waajal ko def ci lépp luñ ci war a def nag taxaw ci nuñ ci war a taxawee démb ba léegi wax dëgg yàlla sonnuñu taayiwuñu ndaxte nag wax dëgg yàlla suñuy def ci maam maam Diarra bu sa borom wax dëgg yàlla duñ sonn duñ taay di ñaan yàlla suñu borom rek yàlla dañu defal ay xéewal ci barke mam jaara ci barke Sëñ Tuubaa ñu koy def at bu jot ci barke mam jaara wax dëgg yàlla dara manqué moom. <laughs> yéen ñu ngi leen jaajëfal di leen bu baax a baax. ndax àll bi sori na metti na waaye taxul ngeen fàtte seen diina benn yoon xam ngeen ne murit lu mu mën a am lu nekk maam Mariama Tula moo ko waral ba tax ngeen taxawal bis bi kon ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax xam ne foo nekk tey dundal màggal fu nekk rek moo ngi mel ne biir yaa nga biir Touba euh, soxna si ñoo ngi lay siyaar di la bégee lu bëree bëri la laaj tey bi nga ñëwee fii teew ci guddi gi ak tant bi nii mu mel nii ak sañse yi ngeen def nii lan la sa xol yëg ci bisub tey bii am kontaante rek kontaan bu baax a baax te xam ne rek dañoo war a roy si maam jaara bu baax a baax soxna maam jaara nañ si roy ñun jigéen ñi nga xam ne ñooy sëy te xam ne génn Sénégal ñëw si dëkk tubaab bi daal nekk feek suñuy jëkkër nañ góorgóorlu daal bu baax si suñu sëy jàpp suñuy borom kër bu baax waa roy sunu maam jaara tulaay daal bu baax. kon ñoo ngi kenn ci jëwriñu daayira bi muy soxna Fatou Mbaw mu doon kenn ci jëwriñu daayira bi ñu bëgg koo laaj tey nan la yëge bisu màggal gi ak ñoom nan lañ ko dundale tey jii. maaleykum salaam. daan Fatou tey yow bi ngeen dundalee bi ngeen doxee seen daayira ba mu yegg si fii ngeen taxawal màggalu soxna jaara gi ban yëg yég ngeen am ba tax ngeen am pësteef bi ba mën a taxawal bis bi eh, ci digg àll bi nga xam ne diine dafee tuburanke yëg-yëg bi de moom paasewulul rek xam ne lii moom wareef la day lu ñu war. fi ñu mën di nekk ak lu mu sori sori day day lu ñu war ndax dañuy ay ñoo xam ni dañoo aju ci Serigne Touba te bëgg ko kon lépp loo xam ne dafa aju ci bisu Maam Jaara bi rek dañ cee war a taxaw suñu këmtalaay kàttan di ñaan yàlla nag suñu borom musal ñu ci saytaane te xiir ñu si gën ñu cee xiirtal bu baax a baax si barke Seydina Mohamed aajo bu fi nit indi rek bu faju te njàgg koo taxawal dund ba suñu sët di ko taxawal si barke naa Mohamed di ñaanal ñëpp rek di jéggalu ñëpp nag wasalaam